mbokk yi yéen ñu ñuy teewlu ci seen numéro 1 de l'actualité sur mobile ñu ngi leen di yëgal ni jàmm xewul dëkk boobu ñuy wax Guinée Bissau nga xamante ne ni Omar Sissoko Embalo moom moo ko jiite. ñenn ñaa ngi njorti ni sax ndax dëkk bi nekkul ci yoonu am coup d'état ndax danoo gis ni tey jii nii dafa amoon lu ñuy tuddee réunion maanaam conseil des ministres extraordinaire bu amoon foofu ca palais de la république. ca njiital premier ministre Nuno Gomes Nambiam waaye danoo jékki-jékki rek am ay eh, tiiru eh, fetel yoo xamante ni dafa commencé eh, jolli ci booru palais bi ba nga xamante ni sax ci image yi na ngi gis am na yenn garde rapproché yoo xam ne maîtriser nañ leen ñan ñoo waral loolu xamagun ko waaye ñu ngi ci gëstu waaye pour yëgal leen ni rek fi mu ne nii dëkk bi mi ngi ci benn confusion totale benn situation bu tendu ca pale bi ak lu ko wër ci ay soxi fetel yoo xamante ni mi ngi jugee ci garde maanaam président Omar Sissoko Ambalo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàmmaloo ak ñoom waaye lu ci munti am dinañ ci dikkaat ak yéen ngir gën a yeet ngir gën a yaatal mbir mi waaye pour le moment fi mu ne nii nag armée bi xaw na déployer force am ci maanaam yenn bâtiment yi nga xamante ni institution institution bi la ak it ñi nga xamante ni dafa laale ci nguur gi.